damaa jàpp ne day taxawaalu <laughs> loolu moom damaa jàpp ne day taxawaalu parce que xam nga euh, li nga xam ne dafa xew ci réew mi ci mois de mars. Ah waaw sëñ bi nga wax garaaw na di moom muy taxawaalu moom li xew ci réew mi ci mois de mars Macky Sall mel hmm. na ne gisu ko gis nga président bi yow Sénégal yi ñoo la fal. Hmm. di la fay weer. Hmm. di la jox seenu xaalis nga di leen ci liggéeyal. jàpp naa ne boo leen respecté. su liggéey ba soppee doo leen woo ñëw leen a kaay fecc ci gërëm ma. yow de sa soxla doo ko def boo ko joxee dépense. Hmm. du la ne kaay fecc ndax ceeb bi ma la toggal. Hmm. day taxawaalu. Hmm. mais lii du tournée économique mais Macky Sall quand même am na droit def tournée économique quand même. non lii du tournée la. ah tournée boo koy def da maanaam boo demee ci région wala département mais acteur économique da war a daje ñoom. béykat ya sàmmkat ya nappkat ya artisan ya nga toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ci mbirum économie ñu nga xool situation économique nga waxtaan ñoom. si jafe-jafe yi am nga xam ko saafara yi ñu ci mën a indi waaye nag wax dëgg yàlla li muy def ay meeting la ay meeting politicien la d'accord. du politicien. Mm. kon encore une fois du ma ko tuddee ay tournée économique dama koy taxawaalu politique.